soxna Maymuna min euh, Malaysia ànd ak ndam li nga xam ne moom la yàlla subhanahu wa taala jagleel ko mu jël quatrième ci musaabaqa boobu nga xam ne macha allah ay xufaas ñoo fa euh, daje woon bi awnillahi taala mu jël kon ñeenteelu place ba loolu am na solo lool ñuy wax Cheikh Mukhtar Silla moom itam moo jël quatrième kon soxna Maymun ci góor waaw nee na Cheikh Muxtaar ci góor ñi moo jël quatrième soxna Maymuna ci jigéen ñi moo jël quatrième Allah akbar yow ndongo daara yow ndongo daara Mbàkke moo koy الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته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 الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس إذا فريق منهم منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عندك حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من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 الحمد لله رب العالمين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمنا كادو جميل سما كلي فانجي بصخ الهاج آدم سك أك بريزيدان مصطفى لومي دي سكرتير جنرال الفدراسيون دي أك بريزيدان سكو مجل كادو waaye ñoom ñooy kilifa yi nekk suñu kanam kaddu yi nag li ci jiitu kaddu sant yàlla lay doon wax alhamdulilahi rabbil alamin sant yàlla bim ñu mayee ñu daje ci jotaay boo xam ne kenn ci ñun rusul ku ko fi fekk ragalul ko fi fek santaat yàlla ci lim ñu defal ci suñu ñaar ñi di soxna maymuna ak maxtaar ci ñu teewaloon réew mi ci jongante bu mag bu ñépp xam te yàlla def ñuy sog a teew ci lu mel noonu waaye indil ñu ndam yu toll nii ñu indil ba nga xam ne ku doon mutaabaa musaabaqa bi xam nga ni fa ñu demoon yéemu na ci ñoom loolu nag dafa am fu mu sosoo fi mu sosoo mooy coono bi nga xam ne moom la sëriñ daara yi toggoo ba def ci ñoom loolu moo tax ñuy sant daara Aïcha ummul muminin ak Sayda Aja bintam yi taxaw ci itte jin def ci may muna ba man loolu waaye di sant bu baax daayira daara alxaaji ibrahima jabu daaru salaam ak sëriñ basiru saaxo mii di sëriñu maxtaar ndax li nekk ci ñoom dañ ko cee def te ku xam alquran xam ne ki koy jàng dina sonn waaye ki koy jàngalee dina sonn ndax moo bindoo noonu marxala ba ñu toll woon xaj na di jànge alxuraan ci niñ ko mane boobu marxala wéy na marxala la boo xam marxala bi ñu toll mooy njàngin wi luñ ko gën a rafetal mu gën a baax lu ñu mën a gën a sonn ci nit ñi am saxaafa bu jëm ci alxuraan xam ne riwaayaat yi du benn xam ne xiraayaat yi du benn ndax bu njëkk di nga gis ko mokkal alxuraan koo xam ne dafa defa ne xaj na noonu mu ko jànge képp lañ koy jànge ci àddina bi ba ca kër fi sax bu jégee ko jànge min samari yi mu bëgg koo gàgganti dafa dafa gàgg wala dafa dafa runge wala dafa juum fekk demeewul noonu loolu itam jàpp naa ne fédération bi bàyyi na ko xel war nañu liggéey bu baax a baax ci def loolu di tëje rek sant ak ñaanal suñu ñaari jàmbaar yi di xam ne lu ñuy wone ci àddina bi ndam lu nit di wone ci àddina bi kenn mënta am ndam lu jigéen yi ndam loo xam ne dafa euh, model la dañuy dimbalewaat sax li ñuy wax lépp xale senegaal yi ñi ñuy rey nangam ak nangam waaye lii li ñuy dimbale ci la bokk ñu wone ko ci anam buñ ko manee lu gën a siiw gën a baax ndax ñoom ñii ñu nokk ay modèle ci seen morom yi ñu xam ne yoon wi ñu jaar mooy yoon wi yàlla dimb lañu ci ñoom ba nga xam ne yàlla mën naa def ñoom ñi ëllëg suñu lépp biir ak biti ñu saytu ko yaakaar naa su ko yàlla defee lu bari lu ñuy jooyee ka jàmbat mën naa am dootuñu ko gis loolu rek mooy kàddu yi nga xam ne bëggoon nañoo wutu sëriñ Ablaye Dia ak président Moustapha Lo ak sëriñ Adama Seck wax ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala baad asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa jullit yi eh, daara Aïcha ci njiital yaay aji bint Thiaw ñi ngi sant yàlla bu baax a baax di wax yaa rabbi laka alhamdu kama yanbaghi li jalaali wajhika wa azimi sultaani loo xam ne làmmiñ mënu koo tudd noonu nga koy sante yàlla kàddu gi mooy kàddoom moo joon digal pour ñu sant yàlla bu baax ba pare tim ndokkeel équipe bi nga xam ñooy équipe bu daara Aïcha bu baax ci seen taxawaay ci liggéey bi waaye tim di ndokkeel wayjuri xale yi nga xam ne ñoo demoon Malaysia def fa concours bi ku ci nekk yàlla may la rang bi mu la may kii ci góor ñi kii ci jigéen ñi kii jël quatrième loolu daara ji mi ngi ci sant bu baax di ñaanal góor gi bay Moustapha Lo di ko wax yal yàlla fa yiwu bare bare bari yàgg way juri xale bi ak say mbokk lu tax parce daar daara Aïcha da nga yàgg ànd ak moom démb ba ay bëtam di xonq yaa doon président APE ñu teewee lépp gis lépp sa guddi ak say bëccëg fa gënoon a tàngee nga àndoon ak daara ji kon loolu daara ji fàttiwu ko da koy renouveler waat ci kanam mbooloo mi du cant waaye da koy seedalawaan mbooloo mi pour ñu mën ci gën a roy di la ñaanal yal na la yàggal sunu kanam yal na fan wi gën a gudd lool wér lool ba pare di woo bu baax waa réew mi di leen wan ne rek lii mooy gàllaaju réew mi buñ ko bàyyi mu toj buñ ko bàyyi rek suñ gàllaaju toj lii mooy su njiit lay ñi ngi woo état bi bu baax di woo autorité yëpp bu baax di woon ñi am assez bu baax ñu gën a taxaw sàmm Sénégal te xam ne lii mooy jig Sénégal Sénégal lii koy defar lii mooy tax mu dem ca kanam li am problème bi am nii lépp ci penc mi ci ak yàqute sori alxuraan ak ñàkk jëfe alxuraan moo tax kon kat sant nañu ñëpp bu baax a baax a baax ñi teew ak ñi teewut ñi bëggoon a teew te mënuñoo teew waaye tamit ñi fi ñëw ca saan ba léegi bàyyi seen ñi jitte yàlla xam na ne bàyyi nañu rëy rëy rëy ngir lii kon ñoom seen tànki ñëw ak seen tànki dem yal na yàlla fay leen ko aw yiwu bare bare bare bare bare waaw alhamdulilah rabbil alamin salaam yàlla def ñu bokk ci cinq yi léegi euh, ñi ngi dem samedi ci guddi mhm. ñi ngi fa àgg dimanche bi ñu xëyee dimanche dañoo def benn concours pour ñu sélectionner ñi nga xamante ne ñoo mën a dem si beneen concours bu mag a mag bi mhm. biñ àggee ci boobu yàlla jàppale ñu mag moxtaar ku ci nekk am na point yi nga xamante ne moom lañ la laaj pour nga mën a jàll ci bu mag a mag bi yàlla dimbali ñu alhamdulilahi rabbil alamin biñ jàllee ci bu mag a mag bi tamit yàlla dogal bokk nañ ci cinq yi te ñi fa pays yi fa daje ëpp na cinq ëpp na téeméer pays alhamdulilahi rabbil alamin lan ah, di sant yàlla bu baax daal kontaan naa trop alhamdulilahi rabbil alamin di sant bu baax samay wayju ñoom ñi nga xamante ne jàppale nañ ma bu baax a baax ba nga xamante ne siggil naa Sénégal siggil naa leen alhamdulilahi rabbil alamin siggil naa tamit daara Aïcha Oumoul Mouminine